ginnaaw bi xalif général kullu murid Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yegsee ci dëkk bu sell bi di Poroxaan ci lu soxal nag wàccaayuk màggaluk soxna Maam Jaara Buso liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wàlluk defaraat ci bërëb bu sell bi tàmbali nañu seenuk liggéey bokk na ci ñi yëngatu ci wàllu courant gi ci wàlluk plombier ki yi nu mel seenuk bëgg-bëgg nag du lenn lu dul fexe ba gan yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bu sedd bi le ñu mën a am séjour bu mucc ayib lu mat euh, ñaari groupe moo fi nekkandi mais bu ñu demee ba màggal gi sës euh, Senelec dina yokk groupe bi ndax euh, fii ci euh, salle bi ñuy defee cérémonie dana fa yóbbu groupe résidence bi it daaw joxoon nañu groupe ñu yóbbu ko fa yooyu yëpp ñun ñoo yor maintenance groupe bi ak installation bi. mboole bërëb yi nga xam ne ganu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yi ñu ngi fii ñi ngànk liggéey yi nu mel ñu ngi fi ak taxawaay gu mucc ayib. liggéey bi maanaam ni ñu ko digale rek muy fépp foo xam ne nii am na lu fa yàqu jëm ci wàllu courant ñu defaraat ko wala lu jëm ci wàllu climatiseur wala lu jëm ci wàllu frigo wala lu jëm ci wàllu plomberie leen lu si nekk am nañu ko sëñ bi liggéeyloo ci équipe bi. leen lu ci nekk it ñi ñi nga xam ne ñu ngi koy def ñu ngi fii mooy mbooloo mii daanaka am na ñeen ñu ngi ko àndal ñu seen i jëwriñ wala seen i ñu ngi ci biir kër gi noonu daal lañ koy defee ba ànd kook sëñ bi muy pare rek. li ci ci liggéey yi nga xam ne gàlloo woon nañu ko ci seen ndoddu ñu jàpp ne daanaka yegg nañu ci jeexintal wi bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy plombier yi. liggéey moom ni nga fekkee day xaw a kii ndax mm, bagage su saalame nga utiliser woo ko lu mat at daanaka soo ñëwee yu si ëpp bagage yu si ëpp boo tijjee day dam yenn yi day grippé waaye wax dëgg yàlla kiiwul ndax ki ñuy liggéeyal moo tax daanaka coono bi duñ ko yegg waaye nag métti na loolu